asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi taalibe ñoo ngi leen di di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di jéggalu bu baax ci kàddu yi nar a yëkkati ci seen kanam ndax suñuy kilifa rek a fi toog waaye da di lu munta ñàkk dañuy topp seen ndigal rek tey nag dañoo amoon yéene waxtaanal leen ci dundug soxna jaara bismillah soxna mariama mariama buso ñu ngi koy dàkkantale ci jikko jaaratullaay dëkkandoom yàlla bi gane àdduna ci atum 1833 ci as dëkk su tudd Golléré ca Fuuta génn àdduna ci atum 1866 ca ra soxna Jaara Buso moom Sëriñ Amat Buso waajuram bu góor ak soxna Astuwaalu Mbàkke waajuram gu jigéen aw askanam ci askanu shérif gu tedd gi boo ko toppee dana dem ba ci imaam Asan ak imaam Aliou ba ci faatimatul bisu faatimatul bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yàlla jaam yàlla ci ñoom mu dundoon ci loolu ak sell akub yar ba war ci doomi soxna jële ko ci waajuram ju jigéen soxna astuwaalu mbàkke doona ba jàngalatu alxuraan ak xam-xamu diine di jaare ci lislaam rawatina ci tasawuf mu yuddu juddu ci loolu waajuram gu jigéen ju fardu jooju yar ko ci su ñu waxee nag ci am jàngam ak am yaram soxna jaaratullaay buso jàngal jàng na alxuraan ci waajuram gu jigéen wu sell wa te sàmm te doon seen soxna su am taxawaay bu mag sëkk ci lislaam ci jàngale ak xare niki sëriñ bi ba mokkal ko ci anam gu sell te sax ci jamono muy am fukki atak ak ñeent mu jàngal ko itam xam-xamu diineem niki kennal yàlla tawxiid atey lislaam axut yoonam fik sellal ak jaamu yàlla ngir yàlla dong tasawuf ba mu wutul leen na mu waree mu yar ko it ci lislaam ci jàngal xuraan ak jëfe jëfe ab xam-xamam yar ko it ci ngor muñ nangu ak jépp jikko gu ñuy taamu ci asgor rawatina bu dul ab jullit ba mu mujj di xarañ bépp xam-xamu lislaam te di koy jëfee ngirum tasawuf ci anam gu xóot ay waay ak li dund gi gàtt lépp ñetti 33 euh, ans demoon na demoon na teewul ci ak farloom bind na alxuraan ñeent fukki yoon ci yàqoom boppam 40 kaamil ba mu di ab jàngaletul alxuraan ci téral bindal bi ñu sofoo leen ci kàddu yi soxna Maymuna lenn ci ay jikkoom soxna jaaratulaa dénkaanub yàlla bi ci ak seetlu akub sàmm di ab julit bu di ju doomi julit nangu te séere ni amul jenn yàlla du ju yàlla waajuram ba doon ëppante nag di bokkaale ak kenn mooy dégg mooy gis muhammadul jaami yàlla ak xéewal ci kawam ndawu yàlla la nangu te jàpp ni lislaam rek mooy diine gëm téerey asamaan yëpp te nangu ni alxuraan la leen wut gëm dogal te di ko rafetlu gëm malaaka yi ak lépp luy aju ci ñoom gëm nangu julli nangu woon joxe azaka nangu woon a wor soxna jaaratulaa doon as gor su di doomi gor di ku sàmm woon ragal yàlla gëm yàlla di ko jaamu sopp yonent bi bëgg ab sëriñam di woye ay ndigalam fonk ay mbokkam te nawloo leen di ab julit buy koy jëfe di as gor su gore di doomi soxna su soxnawu di ab jàngkat bu doon jàngale di borom xam-xam bu ko daan jëfee di borom alxuraan ci bind ak ci wattu doon nañu doon nañu mën a muñ doon ku yara yaru te daa yare doon ku niiwe njabootam te daan leen taxawoo dooni jigéen ju maanu ci gépp anam ku daa dundee lislaam te di ko dundal weeru koor baaxa na di woor ku yees taamu ci at mi ak i woor ak i yi mu daan tegoo woon tëggoo woon na it di jàng téereb dalal yu xayraat yi bu imaam jasawli di ab téere bés tàmmu te fees teel ak i yonent bi ay waxtoom ci jàng alxuraan ak i tariko la daan dëkkee woon mbaa julli ci yonent bi ngir ndigalu yàlla la moom daal ci gàttal mooy waajuru jigéen wu cheikhul ahmadu bamba xaadimul xadim te aji bindu ji moom yàlla nee na suuf su tey mooy gëne gàncal bu baax muy li wolof naan kéwél du tëb doom jëbët kon daal loolu rek doy na ay jikko aku tagg ndax bàyyi doom ju mel ni cheikhul ahmadou bamba ci ak sell akub sàmm wéetal yàlla te jox ko lépp léppam xam-xam di xamle nangu lislaam yarul yaru lool di yare jigéen ju ko am làmbo mboolem jikko diggante soxna jaara ak cheikhul xadim bés delloo ci mbinum cheikh mouhamadul bachiru minel baaxil xadim ma nga naan ca soxna si mënoon na yar ku mënoon a yar la doon na yar ak njabootam ci di leen fàttali ak a nettali xistaaya gaay baax ña di leen soññee di leen xamal lañu def ba yelloo seen may yooy di leen yar ci yu di leen ci nàmpatal loolu nag mooy wareefu bu njëkk wi dox ci diggante waaye jur ak doom soxna si matale ko loolu topp na sëriñ ba wax nañ ne jaarul ci ndaw baaxoon donte waa donte gone baaxoon na ko waaye nanga nga ñu am foowam moo du jullentu jàngaltu alxuraan ak bindantu te loolu kat la ko waajuram bu jigéen bu sell wa ku ne di woon siiw muy sa bos soxna si ci ak mbaanu bi sëriñ bi daan tànk daan def ay xar mu koy yëg te di ko gis waaye sëriñ bi daa sàq ci moom muy bañ koo yëgee waajuram bu góor wala mbooloo mi soxna jaara diggante nag cheikhul xadim weesu na saahir soosu waaye sar na ba ci baatin bu sax te kemtaane bari na ay nettali yu koy saxal waaye ñu tànn ci biir sëriñ abdoulahat mbàkke kiirug déggoom mu ni ba ñu dugalee cheikhul xadim ci pukkus si woon ci ndakaaru mu xat lool sofes ko ay rabu ak fital ndeysaan soxna jaara fekk na ko fa di ko masawu di ko nax di ko fàttali la mu ko yore woon muy di xool ca gaañu baax ña wéy ak lañu daajoon ngir yelloo seeni cër ba yonenti fekk feeñu ko di ko naan di ko naxee am satu ne ko xoolal am satu di ab saxaaba bu jàmbaare ak rayeen bu ñaaw wañ ko rayeen cey wii waay juur loolu la sëriñ Musaa Ka naan nee na keroog gis naa fa suñu maam jaara mu di ko nax te di ko dolli daara njol màkk naan ko xamal xamalal saxaaba bu teddu am satu lii day kitaaba soxna may dama bëggoon nga tontuñu ci wii laaj bu jigéen ñi di laaj nañ lañ mën a def ba mel ni soxna jaara maam jaara nag mel ne soxna jaara yombul waaye ku ko roy raw say maas nu tëjee ak laaj bi kii nee na man de soxla laa te ab jullit laa waaye ni soxna jaara mel mënuma ko mel wax nga dëgg kay waaye bu loolu taxee nga sàggan bu loolu tax ba nga sàggan mukk ba doo def kem sa kemtalaay kàttan te di ko def fu waay tool ndax kat bu ñu nee ku ñëw tuuba dañu dañuy faj say aajo sëriñ si ak taalibe yi ñëpp ay jugandoo waaj Touba ñu yor wata ñu gën koo xamee kon oto taal ko ñu yorul wata paas dem ñu yorul paas dox wuti Touba te ku nekk xam na ni borom wata yaay fekk yaa fay njëkk waaye du tere mukk ñu amul lu dul dox seen tolluwaay lañuy dem mu muy dox te am paas paasub sa bu ñu yéegee it baax na ginnaaw lañuy wut i moom moo gën fa ñuy jeex te ku yëg rekk jot si njëkk su fa yaxte bu yegsee ba am ni borom wata ñooy mujjee yam kuy xalaate nii de doo nangoo teel a daara sa moromu nit def ndax na defe defee sa nanga ko mënee rekk te ak sa tolluwaay li ci des yàlla di tey moo koy mottali damay wax ni yàlla laajuñu gën fi waay li mu fii li waay mën laaj euh, lañ koy fii li waay li mun di laaj kay mooy ñu def suñu kéemtalaay kàttan kon nañu farlu te xam ni nag yàlla xam na li ñu mën bu ñu ko deflu rekk dañuy lànk te jaamu bu lànkal boromam ab atteem leer na ñu leen di jéggalu bu baax di leen ñu leen di ñaanal yàlla magalum jàmm ak i xéewal ak fagumaajo ci bis bu tedd bi di màggalum soxna jaara desi koy fàttaliku jëmm ju tedd gi di soxna suñu tàmm jaaratullah ngalla bu ñu leen ndax ngalla bu ñu leen soññ ci noppi leen bis bi ñoo ko moom suñu bis la taaru na ba pare buñ ko yàq aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi mbokki soxna yi mbokki fédération maam soxna jaaratulaay Touba Italie seen mbokkum taalibe secrétaire général coordinatrice comité de pilotage Proxaan dortoir Proxaan 2023 moo leen di nuyu soxna Fatou la Mbengue moo leen di nuyu di leen ziara di ci nuyoo bi ak ziar bi xalifatul am Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Serigne Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu la ñuy ziare ak nuyoo Cheikh Isaaxa Mbacke moom Serigne Bachir jëwruñu liggéey bi mu yàgg fi lool Mbacke te ànd ak wér. ñoo ngi nuyu kilifa jotaay bi sëriñ maam Thierno Mbacke di ko dalal suñu xel dal na ñoo ngi ñaanal Cheikh Isaaxa mu gën a am tawféex lool Mbacke di nuyu waa kër sëñ Basiiru yi waa Minal Baari Xadim ci màggal gu am solo gi programme bu am solo bii ñu ànd ak fédération Maam Jaaratullaay Touba Italie ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yépp di leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di sant suñu tuut tànk yii fi jóge sànq xale yi doon jàng nga xam ni tey dañoo taaral bis bi macha allah donc nag duma guddal damay jox la présidente soxna Ami Samb mu nuyu mbooloo mi dalal leen ñu ñëwaat ma ma dalalaat secrétaire finance. mu wax leen situation ak bilan fédération bi man ma soog a ñëw ci lu am solo loo xamante ni que ci moom lañu ñu commencé di ci ñaan ñu àggali ak jàmm ak salaam waa kañ bisimilah yaa Adja Fadal yaa maa ngi nuyu tamit kilifa jotaay yii soxna yi toog muy soxna Astu Mbàkke moom Serigne Mourtada yal na yàlla yokk leeram di ko dalal noonu la ñuy nuyoo soxna Aminatu axlu Mbàkke gi nekk fi yëpp ñoo ngi leen di nuyu ak axlu Baay Faal gi nekk fi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bisimilah soxna Ami auzu billaahi mina sheytaani rajiim wa rahmatulahi taala wa barakatu waa kër soxna jaara bu so waa kër seexul xaddim ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq te di leen ko baal di ñaan yàlla nag kàddu gi yàlla na leen fekk ci wér fekk leen ci jàmm di jiital ci nuyoo bi sëñ mu Muntaxa mu sëñ Basiiru Mbàkke di ko ñaanal fan gudd lool ak wér ndax fan wu guddam mooy suñu yokkute kon ñu ngi ko koy ñaanal bu baax di ñaanal sëñ Isaaxa Mbàkke suñu jëwrin fan gudd ak wér jum ñu yàgg a jiital liggéeyu maamam bi ñu topp ci ginnaaw ànd ak moom di ñaanal sëñ Cerno mu sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fekke jataay bi moom it fan gudd loo gum yàgg liggéeyale baayam yu baax yi ak maamam yu baax yi di nuyu sëñ Fàllu Mbàkke imaam di ko siyaare bu baax mook sëñ siidi di leen siyaare bu baax di leen eh, ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal sëñ siidi Mbàkke mu sëñ Abdu borom dër bi moom itam di ko siyaare bu baax di jël nuyoo bu sell nag di ko teg ci loxol jamiya bi ci turu sëñ Matar Kaan bi mu yóbbool ñu ko ci mbooloo mépp dañuy bañ a lim rek muy gudd de kon kenn ku ci nekk danañ la lim di jël beneen nuyoo bu sell di ko teg ci loxol sëñ Cheikh Jaxate mu nuyal ñu ko waa kër sëñ Basiru gépp bàyyiwuñu kenn di jël nuyooy soxna yi di nuyu soxna astu mu sëñ Murtala di ko siyaare bu baax di nuyu soxna ummi Mbàkke mu sëñ Moustapha Masamba di ko siyaare di nuyu soxna maam bu sa Mbàkke mu sëñ xaadim awa ba di nuyu soxna Luuta mu sëñ xaadim awa ba di nuyu soxna maam jaara Mbàkke di jël nuyoo bu sell nag di ko teg ci seen loxo ñu jàllaleel ñu ko ci képp ko fi ñëw rek te sant dañuy bañ a lim rek di nuyu maam say Mbàkke mu sëñ fàllu moom it mi ci jataay bi ñu koy nuyu bu baax di ko siyaare bu ñu sañoon kenn ku ci nekk dinañ la lim wante nag dañuy bañ a guddal ndax waxtu wi dañoo xoj di nuyu nag fédération Soxna jaaro bépp di leen siyaare di leen balu àq di leen siyaare bu baax nag di leen ñaanal xol xel day fattu ñu ngi nuyu it góor ñi ñu àndal góor ñi ñu àndal ñu ngi leen di nuyu bu baax muy góor ñi nga xam ne dañ ñoo boole ñoom ñuy liggéey liggéey bi muy sëñ Babacar Diouf sëñ Modou Thiam sëñ Pape Demba sëñ Pape Seck sëñ Ablaye Thiam Borom ak sëñ seex Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne liggéey bi bi ngeen ñuy jàppale sant nañ ci ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant ndax ànd ak mbooloo mu jigéen metti na torop di nuyu nag président yi yëpp ndax président yi kat ñoo waral lii ndax tey bu ñu demee ba di ñu jox procès yaakaar naa ne mooy président daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci seeni gox di dajale xaalis jiital bureau fédération nag te xooluñu seetuñu lu ñuy def toppatoowuñu dara kon jaaraama jàmbaar ngeen góor ngeen ndax yaakaar naa ku dale woon ci 7000 euros ba tey ji nga yóbbu ay millions yi millions ba war a tabax déctoire boo xam ne ay millions koy tabax dem na ci 150 millions yaakaar naa jàmbaar ngeen kon yéen bu ñu sañoon kenn ku ne dañuy tudd sa tur du dëkk ba nga dëkk wante nag waxtu wee ñu xoj kon jaaraama euh, waa kër soxna jaara ñu gën a góor góorlu rek te xam ne soxna jaara moom dafa am ñu muy liggéeyloo ñi muy liggéeyloo nag mooy ñi nga xam ne dañoo takku rek ngir soxna jaara bëgguñu lam bëgguñu tànk bëgguñu dara te waa fédération soxna jaara ñu ngi ci kon boog ñu ngi leen di sant daayira yi yëpp bu ñu sañoon kenn ku ne dañuy tudd sa tur wante li ñu wax de guddi na te waxtu wi tànc nañu waxtu wi ñu amoon it daf année bañ ko njëkkee dajale quatorze lañu amoon kon ñu santaat yàlla sant sëriñ Tuubaa bu wér sant soxna jaara soxna yi ñiy séddale nañu def ndànk te ñiy nangu li ñuy séddale ñu bañ cee boole ay wax ndax ñiy wax wa tamit li ñuy wax lu am importance la te lu leen concerne la yéen kon teewlu leen ko te it ngeen bàyyi xel ku baax kii toog rikk góor góorgóorlu leen te wàññi coow li ngir jëmmi soxna jaara kon liggéey bi comme ni ma ko waxee woon rek bañ koy doog a door ci euh, màggalu maam jaara gi nga xam ne moom la ñuy def fii ca la ñu commencé woon di dajale euh, parrainage yi ci ndigalu sëñ Isaaxa mi indi woon idée boobu pour ñu mën a jàppale tout tànk ya ca Poroxaan kon année bi ñu ko njëkkee commencé en 2015 14 ndey daara la ñu commencé ma jox leen rek ci gàttal li nga xam ne moom la ñu dajale ci cinq années yu mujj yi 2018 30 parrainage la ñu amoon 30 ndey daara te ku ne xam ne ne euh, parrainage yi 360 la ñuy joxe pour euh, tout tànk bu nekk kon 30 ndey daara la ñu amoon ci 2018 mu toll ci 10 800 euros 2019

119 ndey daara mu nekk 42 840 2022 bii ñu jógee nii tey lii yëpp tamit ci euh, whatsapp bi rek groupe whatsapp bi lañ ko doon dajalee ndax ndajee amul woon 2022 ñu am muy daaw 131 ndey daara muy 47 160 euros ren jii ñi ngi dajale xam naa ni ah, am nañu njort bu rafet ne que dinañu romb 131 yi ñu amoon daaw kon macha allah ah santaat yàlla bu baax rek te xam ne liggéey bi moom jëf jël la lu waay jëf defe naa ni moo lay fekk fële nga xam ne moo jara liggéeyal ndax foofa la. pay gi di gën a neexee ren 2022 bi 2022 euh, bi ñu génn nii ci novembre bi ñu dajee ci Torino doon dajale euh, addiya yi maanaam àllarba yi ak kàttu Maam Jaara fondation Maam Jaara yi 2022 ñi ngi jaay 1867 cartes euh, loolu nekk vingt huit mille cinq euros ndax carte bu nekk quinze euros lañ koy jaayee àllarba ñu dajale quatre vingt cinq mille six raxmatu ñu dajale ci trois mille sept cent quatre trois université sëñ Mam ñu dajale ci quatre mille orphelinat bi bu Touba ñu dajale ci 3810 euh, Mbalem Touba ñu dajale ci 2460 euros Université Sëñ Mamor ñu dajale ci 2875 euros loolu nekk total 130 929 euros macha allah. ah ren nag bi ñu ko dajalee comme ni ko ñëpp xamee rek liggéey boobu nga xam ne moom lañu ñu sumb muy li nga xam ne moom la ñu sëñ Muntaxa sas ca Poroxaan muy euh, dortoir yi nga xam ne moom la fas yéenee tabax ngir nag wax dëgg yàlla ñu mën a am quota bu gën a am solo ci tout tànk yi ñu fay yóbbu bi ñu dajalee xaalis bi yépp dañ ne dañ koy commencer liggéey ci liggéey boobu xam naa ne après secretaire général dina leen duggal ci détails yi mais li nga xam ne daal mooy liñ ko xaymaa début début bi ñu defal ci gàttal dina toll ci cent cinquante millions CFA ñun nag dajale nañu ba am 135 mille 270 euros loolu yépp ñu fas ko yéene commencé dooree ko ci liggéey bi loolu war a toll ci ay 85 millions kon xaaj ba moom lañ ci dugal fas yéene nag jaayante mbooleem taalibe yi muy góor muy jigéen ñu defaat ci sunu ñaq góorgóorlu ba nga xam ne liggéey ba du yegg du weesu fukki weer incha allahu rabbi kon ci gàttal daal euh, situation financière bi loolu la ma jox secretaire général mu dugg ak yéen ci détails yi jërë ngeen jëf. akañ ah, jërëjëf jërëjëf très finance ñu ngi sant di la gërëm ci ci leeral bi daanaka. bëggoon nañ wax liggéeyu fédération maam soxna jaaratul ay bi yëpp wante mm, temps bi moo ñu xoj parce que ku nekk dafa mel ni rek xale bu nekk daara bis bii la ñuy taree bu ñu sañoon dinañ wax lépp li nga xamante ni que moom la ñuy liggéey parce que comme ni ko secrétaire finance waxee rek soxna Aminta Diop fédération maam soxna jaaratulaay mi ngi ci liggéey yi am Touba Mbàkke yëpp liggéey boo xam ni ki fi toogal Sëriñ Touba sumb na ko rek fédération maam soxna jaara da ciy dugal loxoom bi loolu weesoo nag nga xamante ni que chaque année ñu dem yóbbu àllarba ñaari at yi ñu génn ñu amoon mbëbët parce que yóbbu àllarba rek baax na lool murite na lool wante nag jëm faa def loo xamante ni que ñun suñu wàll bu weesoo tout tànk yi dinañ ni lii de mag ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal maam jaaratulaay ñoo ko def Touba ñoo ko def fee ci Porokhane ñu doon ko dagaan nag yàlla defal ñu ci tawféex ak xéwal Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Serigne Bachir jox ñu dortoir Cheikh Isaaxa moom Serigne Bachir jàpp ci lool ñuy sant bu wér sant sëñ Laat Mbàkke di sant mbaala di sant mboolem ñi nga xamante rek ñoo dox suñu diggante sëñ Moustapha Dieng di sant ñëpp taxaw nañ ci ba nga xamante ni que daaw bi ñu jébbalee àllarba le 5 août lañ ñu jox ndigal ne. mën nañoo tabax dortoir bi bi ma amee weer ak lu topp soxna ami dem na Poroxaan Cheikh Isaaxa pres ah, boole ko ak architecte yi ak ñi nga xamante ni que ñoo saytu liggéey bi macha allah ñi sant bu baax nag di sant waa daara ja di sant sëñ Abo Jaxate sëñ Abdoulaye Jaxumpa maam Awa Dem di sant ñëpp di sant ñëpp macha allah liggéey baa ngi dox tàmbali nañ ko def nañ première pause bi keroog bi ñu màggalee bañ ca ba ca ëllëg sa bañ julee tàkkusaan la ñu def première pause pierre bi ca ngoon ñu dem ci sëñ Isaaxa ziar ko wax situation situation bi yëpp ci la ñu joxe ndigal lii tey jii mooy ñu bokk ak màggal gi ak waa fédération sëñ Basiiru donc màggal gi waa kër sëñ Basiiru lañ ko bokkal ñu yaatal ko lool nag yombalal ñu ko lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñëpp ñëpp koo xam ne rek jàpp na ci projet bi rek au niveau du Sénégal di sant soxna maam Jaara Mbàkke yombalal nañ ñu yëpp kay diñ soxla woon yëpp yombalal nu ko ba nga xam ni liggéey bi tàmbali nañ ñi ngi ci fondation yi bërki démb la fondation yi pare donc daanaka ñi ngi dem ci état bu élévation bi donc liggéey bu am solo la biñ ko xaymaa egg na ci 132 millions comme ni ko soxna Aminta Diop waxee rek bi ñuy teg première pause bi bi ñu tegee xeer wi ci saa si lañ teg quatre-vingts millions pour commencer liggéey bi ñuy sant bu baax donc nag te liggéey bi yamul ci cent trente-deux dañ koo bëgg a meubler def ci ay lal def ci ay darab def ci ay armoire ba mu jekk ñu joxe caabi ji boole kook àddiya donc biñ ko xaymaa ñun daanaka soxla nañ plus de cent cinquante millions bi ñu ñëwee fii nag ba wax ko soxna yi liggéey nañ ci liggéey bu am solo ñetti weer yi yëpp comité de pilotage bi ñu ngi ciy liggéey bi ñu ko yëgalee soxna yi keroog ci saa si lu mat cinquante personnes muy daayira ak ku ñëwoon ca réunion ba am nañ fa cinquante tonnes yoo xam ne ni que dañ koo jaayante te boobu bilan bi génnagul sas yi génnagul barkeelu yi génnagul donc soxna soxna maam soxna jaara yi daayira yi kenn amul seen fay balaa liggéey bi di tàmbali balaa devis bi di génn rek jaayante nañ cinquante tonnes ciment bi loolu weesoo devis bi génn na liggéey bi tàmbali na bi ñu waxtaanee suñu biir ak commission bi dañ ñi kon sas bi nañ ko sasoo duñ ci xaar kenn ganu ñu ngi tàllal suñu loxo waa kër sëñ Touba kër sañ Touba yëpp ñu ngi tàllal loxo parce liggéey bi dafa am solo te dafa dañoo soxla dañoo soxla ay koppar bi loolu weesoo lañ ni comme que daayira bi comme ni ko soxna Aminata Diop waxee rek 1800 membres 1860 membres la ñu am yu actif donc daayira fédération Maam Soxna Jaara ëpp nañ 2000 membres donc liggéey boobu bu ñu amee Pastef tuuti rek xajuñu ci liggéey bi 2000 membres lañ bu ñu Pastefoo tuuti rek xajuñu ci liggéey bi mën nañ cee naal am yeneen naal ci lañ ko xaymaa nag ne kon nañ ko séddoo ci lañ ko xaymaa ne ko kon nag membre bu nekk cinquante euros la sas ku am carte fondation bi rek cinquante euros lañ la sas bu loolu weesoo nag ñu ngi ciy woo jullitu yàlla yépp ñu ngi ciy woo tijaan yi xaadir yi yi ak ñépp di ci tàllal loxo nag waa kër Serigne Touba. di leen defal mention spéciale parce que daayira Maam Jaara judduwul par hasard judduwul ci ay kër judduwul ci ay association daayira Maam Soxna Jaara Tulaayi dafa doon kër Sëñ Touba fondation Cheikh Ahmadou Bamba bu nekk Italie yëpp day am daayira Maam Soxna Jaara noonu lañ nasoo ba nga xam ni que en 2005 ndigal li jóge ni sëñ Moustapha moom Serigne Bassir ñu koy ñaanal yàlla yokku leeram lool parce que sëñ moom daf ñoo daf daf ñoo dimbali daf ñoo dimbali keroog ba ñu réunion wee Brescia 2005 ca ngoon sa lañ def fédération ñuy dox ci ndigal nag ñuy dox ci ndigal macha allah ba ñu egsi fii donc fédération Maam Soxna Jaara daanaka kër sëñ tubaay ñoo leen uuf parce que booy seet biñ ñu tof toflee sëñ euh, sëñ Babacar Diouf ci fédération sëñ Basiru bi jox ñu sëñ Pape Demba moom tamit mu jóge ci fédération sëñ Basiru bi pour ñu jàppale ñu ci liggéey bi teewul lu mat fukki kër sëñ Touba yokk na ci fédération bi ñu ku mel ni sëñ Modou Thiam Baye Ablaye Thiam Rum sëñ Cheikh Diouf Genova Alaaji Pape Seck Novara Xaadim Bey par ma ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ni que ñoo ànd ak fédération maam soxna jaara di liggéey ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci jàppale bi lépp lu ñuy xalaat dañ koy xalaat ak ñoom ñu di teg ci yoon te macha allah ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ñu ngi leen di woo ci liggéey bi na nga xam ne tey jii mooy lancement bi donc bis dafa spécial si ñun dafa spécial si ñun parce que tey jii la ñuy tàmbali daanaka. tey la ñuy commencé lancement projet dortoir 2023 yu Proxaan yoo xam ni fédération Maam Soxna Jaara Tulaay moo ko nar a def donc ñoo ngi tàllal loxo ñëpp di soññ sama bopp di soññ bopp di soññ ñëpp nag ne liggéey bi dafa laaj ay koppar donc ñun nañ ko sasoo nañu jaayante songu liggéey bi ba am yeneen naal maa ngi ciy woo ñëpp di leen jaajëfal bu baax nag fédération Maam Soxna Jaara Tulaay di jaajëfal présidente yi seen base liggéey bi jaar na yoon liggéey bi ñuy yóbbu seeni addiya mbooloo mii rek ñooy jël ñoom ñëpp seen addiya benn mbooloo jébbal ko sëñ Tuubaa kon ab tënku la ma wax ci lu tuuti rek ci liggéey bi ndax nag dafa jot ñu expliquer liggéey bi ngeen di def fédération Maam Jaara bu itali li muy dugal ci carte amul kenn ku koy dugal ci ci daara ji mën naa ni bu bu ñu ko xaaj xaajee juróomi xaaj benn beeg genn wàll fii lay jógee loolu nag nekk lu am solo loo xam ni xëy na yéen am na loo leen ci xamul waaye nag liggéey bii ngeen jël daf koy gën a fësal mu di dortoir bu ñuy tabax boo xam ni bu bees dana dana danañ fa dalal cent maam jaara ñu mën fa di fanaan loolu dafay yokk potentiel bi nga xam ni moom la sëñ Moustapha bëggoon loolu nag dafa nekk loo xam ni kenn du ko xeeb waaye man ci gàtt rek gàtt rek lay wax je dans le factuel dama tàmm fu ma dem damay interpeller ñëpp parce que bëgguma kenn ni liggéey bi de ba mu amee kenn boolewuñu wuñ ci ba ñu demee Torino dañoo jaayante fa lañ tàmbalee liggéey bi ni dañoo fas yéene képp ku mën a jaayante tonu ciment nga teg ko ñu jaayante fa cinquante tonnes tey jii dama bëgg ñu jaayante ñun ñii ku fi nekk ñu jaayante lu ñu am ñu génnee ko mu doon ay tonu ciment ñu joxeel ko soxna jaara na soxna yi jóg laaj ko góor ñi jóg laaj ko luñ fi am ñu ko mu doon kartub soxna jaara ci liggéey bi bisimilah sëñ Modou ay kenn nag ni interpellé wuñu la ñépp la ñu wax képp ku fekk nekk ci salle bi na nga génnee la am ñu jaayante ko mu doon ay tonu ciment ñu joxe ko ci ci barke soxna jaara jërëjëf soxna Fatou ñu ngi ñëw ndax dañoo bëgg tënk dafa am rek lu ñu bëgg a fàttali bala ñoo yegsi ci sëriñ bi soxna Soda Samb soxna Soda Samb xam ngeen ko yéen ñépp ci liggéey bi bokk ci ñu ko sos daan ci daj lu ne bis bii buñ ci misaal ak ñépp dañ ko daan gis yaa ngi di soññee saa su nekk kon nag ngeen fàttaliku ko ñu ñaanale la ko ci bis bii yàlla yokk ko yërmande de leen ko ñaanal fu ngeen toll ndax kat bu liggéey bi yegsee fii bokk na ci ñi tax liggéey bi agsi bi yàlla ko yàlla yërëm kon dañuy jox rek kàddu gi soxna am mi waa soxna Faatu bu noppee jox soxna am mi mu tëj ñu jox kàddu gi sëriñ bi waaye dama am tuuti rek loo xam ne dafa jóge ci kër Serigne Touba bu Brescia livre bi mooy livre bi mbay Guèye Syll Mbaye Guèye Syll xam ngeen ko Daaru Musti am na téere bu mu bindoon ci sëriñ bi di ci wax tubaab yi nga xam ne ñoo doon sonal sëriñ bi ak ñenn ci sénégalais yi seenug mujj bindoon ko ci kàllaama français bi mu demee di ko présenté sëriñ Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko mu xamal ko nag na nga fexe bañ def ko ci langue yëpp ndax Serigne Touba ñëpp ko war a xam livre bi dañ koo def en italien làkku réew mi 20 euros lañ koy wecceekoo dañoo bëgg mu tasaaroo ci réew mi yëpp ci kër Serigne Touba yi ñi ko yore ñu ngi ci bunt bi muy kër Serigne Touba gu Brescia 20 euros may wecce bi kon na ci ñëpp jàpp. soxna yi damay wax ak yéen laaj bi ma laaj de yaaram yi rek ñoo ma jox te dama bëgg yéen ñëpp ngeen laal seen poos ku ci ne jox ma. ndax nag kafuma de liggéey bi eh, damaa bëgg yéen ñëpp ngeen bokk ci bisimilah. deux minutes ngeen. wala ma bàyyi. may dëggalal rek daf may jàppale daf may dëggal ko bisimilah maa ñëwaat rek di leeral xëy na leeral bi am na benn côté boo xam ni xam naa dafay diis sama côté donc il faut ma wax ko comme man ak ñu góor ñi sëñ Pape Demba sëñ Babacar ñoo ko yore mooy xale yi nga xam ne dañuy bindu di dem ci daara ji macha allah ñu ngi ci 22 tout tànk te daara ji dafa xat dagaat naa ko Cheikh Isaaxa moom Serigne Bachir bërki démb Poroxaan nee na ma. sélection bi moo metti moo xat ba ñun suñu ay tout tànk ñu ngi bëgg a jëm mag xale yaa ngi commencé am huit ans neuf ans donc soxna maam Awa dem wax na ma ni que xale bu am neuf ans mënut bokk ak xale bu am six ans classe day am problème liste bi nag chaque année dagal naa ko sax isaax ba ki dem poroxaan ñeen dinañ ci dinañ ci def lu ñu mun may wax mbokki taalibe yëpp bu ñu sañoon xale yi bindu yëpp ay dem mais am nañ problème xale yi dañoo âgé du ñëppay dem donc liste bi dañ koy defaraat ñi am juróom benn at kese ñoo ci mën a bindu parce que chaque année kenn la ñu am moo tax ñuy góorgóorlu ñu war a laxasaayu bu baax tabax dortoir bu ñu tabaxee dortoir xale yi dinañ mën a dem parce que xale yi jóge fii ñu ngi ci loxo tubaab bi ñu ngi ci loxo tubaab bi c'est les enfants du procureur mën nañ leen a jël en tout moment assistance sociale ñu ngi ci ñu ngi ci famille yi donc xale euh, waajur bu bu volontaire wul euh, jaayante ne dafa bëgg doomam dem ca daara ja te xale bu jógee fii Italie dem daara ja bu ñëwee dina sopp fukki xale problème yi bari na lool xale yi war na dem daara ja surtout foofu rek lañ mën a rëcc tubaab bi parce que tubaab bi mi ngi ci biir famille yi dafa ëpp doye at yi ñu nekk sax donc ñu ngi koy dagaan ku ñu jàppale lool xale yi gën a mën a dem maa ngi jégalu bu baax il fallait que ma wax ko rek parce que maa yor liste bi te dafa ma tiis lool maa ngi jégalu bu baax Mbàkke maa ngi jox Adja Ami Samb la présidente mu tëj mu nuyoo jaajëfal ñëpp ñun mënuñu dara mbooloo mii toog tey jii ñooy dajale ba benn bëccëg entre huit heures ba ba dix heures du ñu dajale cent trente mille euros amul amul Italie ça n'existe pas en Italie jigéen ñi rek ñoo ko moom. garaw lakk maam jaare yéen nag yéen a ko moom dinaa wax li ma bëgg a wax dañ ma caa auzu billaahi maa ngi jégguluwaat nag bu baax ci waxaat gi wante xel day fattu ndax ñi waroon a jiitu ci wax ji xel day fattu muy Cheikh Mourtala Mbacke mu baax mi nga tedd mu tedd mi nga xam ne bu état li nooyee ba tey jii daara yi jolli moo tax kon yal nañu yàlla taas ci barkeem tañ dese barke bi nit nag nit rek lay doon wante ñu war a jiitu moom faw ñooy jiitu ndax tey bu ñu defaree ay daayira sëñ Tuubaa ba tey jii ba daara yi soxna jaar yi fekk si leen Seex Murtala Mbàkke tax boole ñoog doomam ji itam ba muy tuut tànk ba léegi mi di ko fi andi fu ñu taxaw mu taxaw fa kon loolu jaroon naa seede te moom lañu waroon na njëkk a seede di ñaanal soxna Sooda Sàmb itam yàlla xare ko àjjana ca àjjanay firdawsi ya ndax mbooloo mi itam bu taxawee rek yàlla moom a tax te fu ne taxaw na fa dugg na terrain dugg oto dugg lu ne kon ci ñooñu lañ waroon a njëkke ñu sos daayira yi bokk ko waa kër sëñ Basiiru ñi di ko dox di ko dox ba tey jiitu tànk yi jot ci kon ñu ngi leen di sant di sant tànk yi di sant nag fédération bi ba tey di leen wax ne nañ góor góorlu ndaxte kat gënuñu suñuy moroom kon bu ñu yàlla wooyee ci liggéeyu sëñ Bàmba bi wooñu ci liggéeyu soxna jaara bi dañoo war a sant yàlla bu bu ñu bëggu lam bu ñu bëggu mbubb lu ñu am nañ ko def ci liggéeyu sëñ Bàmba bi ak soxna jaara bi ndax moom rekk a fi nekk présidente daayira yi ñu dimbali leen ndax laaj metti na joxe metti na wante nag nañ leen dimbale ndax kiy laaj deful ci poosam li ñuy laaj lépp fii la jëm te leeral nañ leen ko tey kon présidente daayira yi mbooloo mi nañ leen dimbale te xam ne kat feret rek la lu ci waay joxe sa bopp nga ko joxeel ku ne nag dërëm bii laa am duma ko joxe ci daayira bi di ko jënd jënde crédit jëw ci wax ci lu yàlla bëggul yonant bu bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko ñu bindal la ci bàkkaar kon kenn ku ci nekk danga war loo am rek ndax suñu baay yu baax yaa suñu maam yu baax ya dañ daan bay di daw di daw di yóbbu àddiya kon loolu la war a xool ku dem itam ba bokk ci daayira nekkat man dama tàllal sama loxo dugg ci daay daayira sàtt daayira ba war nga koo doxal kon mbooloo mi dee leen doxal seen sàtt daayira ci seen biir daayira ndax président yi wax dëgg yàlla am jàmbar lañ dangay ngay gis président boo xam ne mbooloom du ñu joxe mais dina fexe ba indi dara ci fédération bi ndax na koo bokk ki nawleem kon mbooloo mi dimbalee leen seeni président te leen dimbale ci liggéey bi maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ndaxte lii lépp mbooloo mee ko indi dañ leen di ñaax di ñaax suñu bopp te xam ne liggéey sëñ Touba bi rekk fi des asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu